du rafet la jataay bi dinaa bañ sant yàlla ba di séenu di soo si seen Cheikh Oumar di am mbégte ak kontaan trop si fii ma toog nii muy kër gi ma toog ànd ak délégation bu mag ñëw seet suñu jarbaat suñu rakk suñu xarit suñu sëriñ ñu yar ko nekk doomu ndar bu ndaw ndax bu ñëw séddee bu ñëw séddee ndar bu ndaw kenn du ko ëppale ndax maamu bokk na fi ñi ko njëkk am titre foncier si Ngor Ndeye ma def délégation ànd ak euh, Mayel Thiam si sa jànk Baye Kala Lamp Ousmane Keita ak na Ndiol Jo Aydara ak Moussa Keita vraiment ñëpp ñëw teew ñu def délégation bu mag ki ñu yebal nag mooy suñu frère nekk suñu directeur DG nekk suñu promoteur bu nekk président rajo Sopé Ba mooy Ibrahima Keita bu ñu toog waxtaanee ko si journée bi ñu jëm mooy le premier décembre làmb bu mag ci cœur de ville ñu def ay drapeaux am ku ko déy na ko bugg nañ sargal suñu benn jarbaat boo xam ne moom ci dëkk bi nii nekk xale boo xam ne si njub la ne ak jaamu yàlla di ñaanal nit yàlla ñu di ko gis mu nekk nit ko xam ne bu ma neexee rek nit baatin la mu teg tànkam fu ci ay waajuram muy sëriñ Ousmane Faye bii toog ñu war koo sargal drapeau bi nga xam ne nii suñu promoteur mooy yow te ñu ñëw ndax délégation un di ànd ak moom ñu ñëw wan ko ne ko Ndramou Ndaw ci bu Bambara ak staff bi Ndramou Ndaw yëpp équipe bi yëpp kontaan nañ si yow a lañ ci bu baax nañu yow a la yàlla may jàmm may ko ñëpp ñu ko doole ànd say mbokk ànd ak ñëpp ndax xam nga rek moo am solo nit am na lu ne te tuddewuñ ko drapeau nit yor na lu ne nit ñi buñ ko rombee sax dañuy du mooyu waaye yow meloo noonu dangaa fonk ñëpp bëgg ñëpp man nawul li nit ñi toog di xam nga sama téléphone bi maa ko moom waxtaan xam nga géwél moom ku koy nemmeeku ñeme nga ko ku koy woo ñeme nga ko am na ñoo xam ne du ñu woo géwél yi de te du ñu leen nemmeeku de waaye yow defoo loolu yow loo am joxe ko toog seen waa ko ñoo ma ko wax rek ndax bi buy football nga si jàpp di si def sa alal di si sonn ma dama see xam dara parce que bu mu dëggalee ba booy ooma téléphone dama bàyyi dimbali ñu dañoo jaaxle man maa la woo ne la maa Ousmane loo jàppoon bàyyi loo mën defal ndax yaakaar a tax ñu ñëw si man te yaakaar boobu ñu am si man ba ma am yaakaar boo la yàlla bu mu tas jour nga gagné dóor équipe ba 1-0 te noonu nga ma koy waxoon na ma dinaa ko gañe te dinaa la gën a siggil kon nag lii gën a sant di la ñaanal nag bés bi sa bés la bés du tuuti. man maa Ousmane parce que ñoo dëkk Ndargou Ndaw mais taxul ñu miinante waaye li fi ñii li ko fi ñii seedeel rek doy na sëkk tax na ñu ñeme ko daal di ko ñaanal yàlla yàlla dooleel ko ba bés ba rek mu yegg si si jàmm fekk ñu fa si jàmm ñu dooleel ko si jàmm feete bés bi si jàmm parce que nit nag du sargal ku deful dara de. drapeau duñ ko jox ku deful dara duñ ko jox ku représenté wuñ fi mu dëkk dara duñ fekk ab baytaala wala ab mayen ci mbedd ñu leen di jox drapeau drapeau buñ la ko ndar ndaw joxe yaa ko fa liggéey wane ko fa man bi ma ñëwee sincèrement parlé gën naa ñemee ki jox drapeau bi gën naa cee ànd gën naa cee d'accord naa ci à cent pour cent asalaamaaleykum mbooloo jëmm ji tey ñu tuddee drapeau dafa am lu bari lu ma ci mën a wax lu bëri parce que dama ko tette ba nu mu yem nii tey yàqu ci dara yàqu ci dara yaayam mii tamit aussi wax dëgg ndey di seex la tëjee yaayam si la koy expliquer ñun nan lañ nan lañ bokkante maa Ousmane lu mu yor ci poosam man mi maa moom man Moussa Diagne billaahi wallaahi tallaahi ak waa koñ bi tey koñ bi tey kenn mënu wax te tuddul ma ma Ousmane mi ak ay xaritam yële mu àndal tey fu ñu ma romb ñoom ñëpp dañoo dem ba nijaay nijaay nijaay nijaay mu juddoo ndar bu ndaw it màggee fa wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku baax la kii faj bu mu gàccee waa waa waa gox bii mu dëkk la tey bon ñaanal ko ci yàlla loolu noonu bés bii tey man xamoon naa ne dana ko am. maa ngi leen di kenn ku ci nekk ak sa tur ak sa sant maam Ousmane de ko tuddee drapeau bi oh. ah ñu ngi koy rafetlu di si kontaan di ko ñaanal yàlla yàlla na àggalee sago. li si ibu Bambara jublu ba tuddee ko ko yàlla si gis lu ko ëpp si barke Cheikhu Tidiane hmm. ma gërëmee suma wayjur yi ñaari wayjur gërëm sama borom kër mi nga xam ne moo ma hmm. ma yor fi maam Ousmane yar ko ba màgg ba mun a ba am drapeau buñ koy tuddee balaa maa gërëm kenn kon damay gërëm suma borom kër Ma ngi gërëm nag samay mbokk sumay mag samay rak samay am di jàmm hmm. maa ngi gërëm ñi ma ndar bu ndaw ba juddo fa yaro fa ba mampus fa ba jur mam mampus ba tol ni ah mam Ousmane nak dama koy ñaanal yalla mako jur damay tok fi ñepp nga tok ma ñaanal ko yalla lepp lu am fi la ko indi te dina ak man yagul lama yobbu ma ziaré Cheikh na Ahmed Tidiane man ko mam Ousmane déedéet defal leneen mu ne ma déedéet yaay dama judd fekk la nga bëgg Cheikh Tidiane ma ñaanon yalla ne man da dem umra Makka mu ne ma ñaanon yalla ne dina la yobbu fees ba yalla may ma lu ma la yóbboo fees ma muna ma demal dama lay yobbo fees ma dem fees contane trop parce que bi may ndaw ba legui maa ngi Cheikh na Ahmed Tidiane mu yobbu ma ziar Cheikh Ahmed Tidiane ma dem ma ko mam ah, Ousmane ma ne ah ma ko yo ya ma jël yobbu ma ziar Cheikh na Ahmed Tidiane ñuy suma ñuy suma wasila, dis ma wasi la ko ma ngi lay sama loxo sunu borom di ñaanal yalla lepp lo mun ren talal ma yóbboo nga mën lu ko damay talal sama loxo di ñaanal yalla fepp fu mu bëgg ag lepp lu mu bëgg a lepp lu mu bëgg mëne yalla ko yalla defal si barke tay mu nekk ndaw nu du bari mu jël ko xol ko ne ko mala tuddé suma lamb ñu ngi ñaan yalla yalla na agalé sa ko lu mu si jublu war ko yene mu war ko agalé ci bambara yalla ko yalla yombal ki sama way la mo mënul wax ma xay wax néna na ci na drapeau bi baaxa baax te def fi lo xamanteni ni war ngeen ko mëna tuddé hmm. kon dank yéen jël cër bu reuy joxoko ngi leen sant di leen gërëm mm. waaw kontaan na si bu baax man moom mënuma wax